ñu xam ne lim leen teg mën nañ ko ndax bu dee ab baykat yàlla moo ko waxoon ci alquran al karim santaane asaka mooy gi nga xam ne moo wàcc ndox ñu jóge ci asamaan si ngeen bay ci loo xam ne boo ko sexee day sax suukar ak leneen loo xam ne boo ko sexee day wax xat mu bokk ci kéemaan suñu borom mu mel ne ci biir man-man yi nit ñi man mën nañoo fexe ba génn am ndox ci suuf mën a fexe ba dawal ak dex muy daw waaye nag suñu borom yeeyaat lan ci ne leen bu ngeen wutee am ndox tam ba sotti ko ci kaw suuf si suñu borom mi leen sant ngeen gën a asaka mooy ki nga xam ne moom moo koy saxal ndax la ngeen cay man mooy sànni tooba sànni ko ci tooba bi rek xamu leen daa jaaxaar xamu leen da tëdd wet xamu leen dafa defeenu waaye moom la ca war mooy eh, def ko ci suuf rek bàyyi ko ak loxoom la ca des moo ko cay def kon saxal gën koy saxal yey na ci ñëpp ci ne moom rek mooy ki nga xam ne am na doom ci loxom la nekk te kattanam ak sañ-sañam yi mu fenn tax na bu santaanee waras na caa gaaw jëm mu mel ne nag aaya bi ma jàng léegi mooy huwa alladi anzala min alsamaai maan lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tuzimun yumbitu lakum bihi zarca walzaytuna walnaxila walanab wa min kulli althamarat inna fi dalika la aayatan li yatafakkarun tafakkur boobu yi nag cheikhul xadim mi nga xam ne moom lañu yaakaar leeral nañu tafak tafakkur mooy lan boo demee ci téerim bi nga xam ne moo di Masaalikul Jinaan ci di ko tàmbalee bayitu ñeenti téeméer ak juróom-ñeent ma nga cay wax naan di xalaat suñu borom ak xéewal yi mu la defal ak li ñu la mënoon teg te tëggu ko bu dee gànjar am na bu dee gànjar la mooy gànjar gi gën a kawe ci gànjar ndax kat toog di xalam bi la suñu borom defal ba bu la santee nga xam ne sañ na laa sant nee na dara wutalewu ko ak seetu boo xam ne da koo teg ci sa kër bala ngaa génn xool na nga ca mel ba xam nga génn wala déet teg ca ne xalaat xalaat xéewali ko suñu borom defal bu santee xam ne sañ na ko day wan nit ki yu bari yu mu war a def di ko wane tam yu baree yoo xam ne da ko war a moytu ndax neena tafakkur moy melokan ku bëgg ag ci yalla delu ne jëlé na ci ñu ñu wóor té ñoo kenn du gëna gën mu ne toog di xalaat xéewal yi suñu borom defal mo gën jaamu yalla jamono jëpp té anut tak xalaat li sa borom suñu borom defal am ben ay bu jitu bo xamni sidna ibrahima moo doon naan yàlla ne ko kat fi nga ma yabal dima fi wolo nit ñi barab la bo xamni amu mbay amu dara aya boobee lam daanoo mooy na nga leen defal ci suuf si loo xam ne dañ koy xéwlu ba bu ëllëgee si biir ñu mën laa sant cant boobu itam Sëriñ Tuubaa mi ngi wax ci Masaalikul Jinaan ci li ko tàmbalee ci bayit bayitu junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar naan dëgg-dëgg sant yàlla nag mooy wan yàlla ne ko li nga ma defal xam naa ko tekki wër na yàlla da ko gisut waaye nga wan ko ñi nga xam dañu ko doon ñaan ni yow te jàppandeeku leen nam la jàppandee mu tënk ko foofu